الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي خلق الأرض وشق لنا فيه الأنهار أحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار doomu ndey mbokk jullit ñu ngi sant suñu borom ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam si sonam ba bis pénc doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp ñu takkoo ragal yàlla fu ñu mënti nekk te ñu xam ne ci ragal yàlla boobu la ñu mën amee teranga àdduna ak àllaaxira nañ koy faral di waxee ci jamono bii ñu toll mooy ñu ngi toll ci jamono nit ki xool saytuwaat boppam ndax bu nit ki dundee li nga xamante ne moom mooy atu lëmm dafay baax mu saytuwaat li nga xam ne moom mooy boppam kon suñu programme mu waxtaan yépp dafay aajoo ci li nga xam ne ni mooy fin d'année bi nga xam ne moom lañ jëm ñu xam ne tey jii daanaka mooy 26 te fii ak ñetti fan rek boo moytuwul bu weer bi feeñee dañuy dugg ci li nga xam ne mooy at bu bees kon noonu ñuy duggee ci at bu bees jullit bi tam noonu la waree fexe préparer boppam ba buy dugg ci at bu bees bi dafay fekk moom it mu set wecc ci bàkkaar tey suñu waxtaan dañ koy jëmale ci li nga xam ne moom mooy tuub tuub nag dafa nekk loo xam ne farata la ci doomu doomu aadama bi nit julli nekkee farata ci yow nga xam ne da nga ko war a def tuub noonu la nekkee ci li nga xam ne moom mooy farata ci nit ki doomu ndey mbokk jullit nii bu ñu nee tuub nag mooy nit ki dafay def bàkkaar dafay def bàkkaar ci lay aajowoo mu daal di tuub léegi nag lan mooy bàkkaar bàkkaar dafay làmboo ci ñaari mbir imma yàlla sant la defoo wala mu tere la nga daal di koy def ñaari yi moom mooy bàkkaar yàlla sant la ne la jullil julliwoo da ngay am bàkkaar yàlla tere la bul fen wala bul njaaloo nga def dangay am bàkkaar loolu moom mooy bàkkaar si tënk si ñaar yooyu la basé wu imma yàlla sant la nga lànk defoo wala mu tere la nga daal di koy def ginnaaw nag bi nit ki defee loolu nag te loolu dafa ànd ak doomu aadama il faut que loolu ñu souligner ko ndax yoon saa salaam moom la yàlla yoon ci ñun waxu ko nag pour ne nit ñi di bàkkaar déedéet dafa xamal ne rek yàlla dafa mooñaalee doomu aadama muy bàkkaar doomu aadama bàkkaarkat la moo tax mu ne kullu bani aadama xataa wa xayral xataawun at tawaabuun bàkkaar doomu aadama yépp te buñ ko waxee ñépp a ngi ci biir moom ci boppam génnu ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon massa keneen mu ne dañuy def bàkkaar waaye nag ki gën ci bàkkaarkat yi mooy ki nga xam ne dafay tuub maanaam bàkkaar mënut a ñàkk faw mu am waaye ngal la waaye nag del tuub bu topp bàkkaar yi di tëñëx tëñëxi di dem balaa dee di ñëw di la ci fekk kon yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom mooy kiy nangu tuubi il faut que loolu ñu xam ko yàlla mooy kiy nangu tuubi te sax du moom la ñuy tooñ ni ñu ko yàggee di wax nit ki boppam lay tooñ te yàlla même bu koy woo pour mu jéggalu ko sax daf koy woo ci anamu yow mii tooñ sa bopp ñëwal nga daal di jéggalu ci li nga xam ne moom mooy sa borom kon amul kenn kuy jéggale bàkkaari ku dul yàlla wa man yaxfiru zunuba illa allah yàlla kese mooy jékkare mooy jéggale li nga xam ne mooy bàkkaari kon tuub ci noonu lañ koy déggee du ñàkk doomu aadama bi di ko def waaye nay tuub di dellu ci li nga xam ne mooy boromam rawatina ci période yi ñu toll nga xamante ne yàlla may na la nga dund atu lëmm loolu xéewal la ñaata nit tey ñoo bàyyeekoo fii ci at bii tey nga xam leen ñu jege la lool du seen yaafus de seen àpp jot yow mi fi des bay mën a xaar at bii di ñëw du sa jàmbaar moo la fi bàyyi sa àpp moo jotagul kon balaa loolu fexeel góor-góorlu taxaw ci bunt bii nga xam ne mooy buntu tuub du tëj nag yàlla du dëjal buntu tuubam kenn ba mu des ki nga xamante ne malakul mawta ñëw na ko ziyaare nga xam ne tey jeex na mu gis ko jaxaran foofu bu tuubee moom yàlla daka naan bunt bi tëj naa ko c'est trop tard noonu lañ koy waxee c'est trop tard waaye bu fekkente ne du anam boobu nit ki bu fekkee jour bi nga xam ne mooy jour bu mujj ci àdduna xam ne jant bi jóge na fi muy fenkee waaye fi muy soowee la xëyee foofu bu fa yeggee rek buntu tuub day tëj yàlla dootul jéggale foofu tam c'est trop tard kon balaa nit ki di yegg foofu na fexe di tuub ay bàkkaaram doomu ndey mbokk jullit ñi yàlla bëgg na ñuy tuub bëgg boobu mu bëgg ñu tuub moo tax mu indil ñu ay waxam waxu boppam yàlla mu ne wallazina amilu sayyi'at summa taabu min baadiha wa amanu inna rabbaka min baadiha la ghafurur rahim yàlla neen ñi nga xamante ne dañuy def ay bàkkaar waaye ñu daal di tuub ginnaaw bi ñu defee li nga xam ne mooy bàkkaar boobu yamuñu tuub bi ñu daal di gëm li nga xamante ne moom mooy seen borom nañu xam ne ginnaaw loolu yàlla mooy ki nga xam ne mooy ki jéggale bàkkaar yi yàlla mu ngi wax li nga xamante ne nii moom mooy waxam bi ci li nga xamante ne moom mooy ci alxuraanam bu tedd bi mu ngi koy wax su suratul Araf aaya 154 waaye ba léegi ci yàlla bëgg bi mu ñu bëggal tuub mu ñuy woo te xool anam bi mu ñu woowee yéen ñi gëm la woo yàlla mu ne yaa ayyuhallazina aamanu tuubu na ngeen tuub ci kan seen tuub ci kan la jëm mu ne ilallah ci yàlla tawbatan nasuha tuub boo xamante ne tuub gu dëggu lay nekk tuub gu sell nga xamante ne li ngay def dafay sincère ci yow parce que tuub ba nekkul mbir moo xamante ne dafay tëb rek ne damay tuub rek tuub naa waaye dëggul ci yow su ma xëyee mun naa nekkaat ci bàkkaar bi maanaam amoo benn intention ci tuub bi ngay def kon tuub bi dafa war a nekk loo xamante ne lu nekk lu dëggu la nekk si yow yàlla ne asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atihim wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ci tuub boobu lay nit ko nit ki di tuub ci lay yàlla di ko jéggal bàkkaaram ba mën koo dugal li nga xam ne moom ay àjjana te ñun ñëpp suñu mébét àjjana la kon nit ki bu tuubul bàkkaaram ba faatu tontu bi mooy lan mooy du dugg àjjana moo tax yàlla ne nañu tuub si moom tuub boo xam ne tuub bu sell la tuub bu dëggu amaana buñ defee loolu yàlla dinañu jéggal suñuy bàkkaar waaye dugal ñu fi nga xam ne moom mooy àjjana kon yàlla bëggal nañu li nga xamante ne moom mooy tuub kon doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu taxoo li nga xamante ne moom mooy tuub bokk na ci li nga xamante ne nii yàkkamti mbiru seytaane la yàkkamti mbiru seytaane la moom lañ naan al ajalatu mina seytaan waaye nag juróomi mbir yi dañ cee bëgg yàkkamti juróomi mbir mu ngi nii dañ cee bëgg yàkkamti kon nañ ci bàyyi xel bu baax baax si juróomi mbir yooyu bokk na si juróomi mbir yi nga xamante ne mi nit ki war koo yéexe daf ko war a yàkkamti daf ko war a gaawe moom mooy nit ki mu saxoo li nga xam ne moom mooy tuub bàkkaar naa ci saa si na nga tuub amul xaarama xaar amul xaarama xaar xëy na dinañ ñëw ci nit ki nan lay conscientiser boppam ba ba ba xam ne moom mi bàkkaar na waaye li wér moom mooy bokk na ci nit ki li mu war a gën a gaawe donte yàkkamti da ci seytaane lañ ko xaar mais juróom yi faw nit ki bàyyi ci xel bu njëkk bi moom mooy tuub ñaareel bi moom mooy maye sa doom bu jigéen dañ ko war a gaawee ñun nag seytaane ñu fëq ak àdduna ñu toog mel ni suñu doom yi dañ leen di dañ leen di commercer concurrence cinq millions dix millions vingt cinq millions villa voiture yonent saa salaam nee na képp koo xam ne am na doom bu jigéen mu yar ko fi mu koy war a yaree musul mooy yàlla doom ji musul mooy yàlla ba heure maye jote ko mu may ko jëkkër yonent bi nii la def baaraama mi ñaari baaraam daf koo kole taxale ko mu ne maag moom nii biir àjjana mooy yàq yonent bi yéenay bokk fi ngeen nekk àjjana bi muy wax loolu nag ñetti doomu jigéen la wax benn sahaaba jóg ne ko waa bu la yàlla mayul ñett nag may la ñaar mu ne donte ñaar yooyu mooy kon day dépendre kon si doomu jigéen ñi la yàlla may keneen jug ne ko bu la yàlla mayee benn mu ne donte benn boobu la nga sonn ci moom ba xamul lan mooy mooy yàlla bu ñu nee nag lan mooy mooy yàlla mooy tey suñu gis nga xale yu jigéen ñi tey ku ci gën a wow sa bopp bët sa borom ne kii la way juri di concurrencé naa jox sama doom bu jigéen portable nga yaakaar ne mu ngi ci biir kër gi fekk génn na mbedd mi bu yàgg xale bu jigéen bi nekk biir néegam nga yaakaar ne tëdd na fekk boobu soirée yëpp mu ngi fa waaye bougéwul fu mu nekk ndax lan téléphone am kon pour mu mucc si loolu dafay dépendre ci yow wayjur bi yonent bi nee na nga góorgóorlu ba doom jooju jigéen boobu mooyul yàlla ba may jëkkër jot nga may ko jëkkër mu ne yàgg moom nii biir àjjana kon loolu jar na ko moo tax bokk na ci nit lu mu war a def bu sa doom tolloo ci may am jëkkër bu ko yéexee gaawal nga may ko jëkkër waaye nag bul yàkkamte ba bul xool charte yi la islam charte loo mooy nit ki xaaral ci moom rek na nekk koo xamante ni ku am ngëm yàlla la na nekk julit nekk koo xam ne ku am ngëm yàlla la loolu rek la ñuy xaar ci moom xaaruñ ci moom wërsëg xaaruñ ci moom leneen ndax wërsëg yàlla moo ko yor moo koy joxe yàlla moo ko waxal boppam ci alxuraan ne may leen seen doomi man maa leen di wërsëgal may leen célibataire yi nekk seen biir mu ne man maa leen di wërsëgal kon képp koo xam ne takk na soxna ngir fegu boppam bañ a mooy yàlla yàlla moom moo ko garantir jox ko wërsëg bu mu yoree njabootam loolu lu wér la kon nañ ci góorgóorlu lu baax ñu xam ne bokk nañ ci nit ki li mu war a yàkkamti mooy doomam bu jigéen mu daal di koy teel a li nga xam ne moom mooy maye ñetteel bi nit ki war na yàkkamti ci ay borom bor dëkk bi metti na bor bëri na trop man mii taxaw fii moo tax damay naan xutba bi man maa ngi koy def sax waaye man maa ko gën a yittewoo nañuy gaawee suñu bor yi yenn saa salaam nit ki day génn àdduna ñu war koo jullee mu ne du ko jullee tànk rek la wuñu borom te jullee mooy ñaanal néew bi yonent bi ne duñ ko ñaanal tànk rek la wuñu ay borom waaw duñu rek la suñuy bor balaa ñuy génn àdduna buñ koy leb neex na kiñ koy leb amaana moo ñu ko gën a soxla waaye rafetal tax na mu yëkkati jox ñu nga la waaye nañ ko def nañ ko rafetal ñun tamit ba delloo ko ko ni mu ko rafetaloo buñ ñu koy jox kon nañu taxawee suñuy bor gaawee ko li nga xam ne moom mooy ñeenteel bi si nit ki li nga xam ne war na ko gaawee mooy suul néew te tey tam loolu tam lu tumuranke la nit ki bu génnee àdduna rek dañ ko war a suul summa amaatahu fa aqbara gis nga dafa kolante mooy génn na àdduna nañ ko waajal nañ ko denc loolu mooy li gën ci moom waaye nag des fois condition mun na am ndax al mawla aqrab néew bi ay mbokkam ñoo ko gën a jege su fekkee mbokkam yi dañoo tukki wala lu mel ni kilifa kër gi nekk fi dafa tukki boobu moom day laaj moom ñu xaar parce que moom moo ci gën a yey bu joxee ndigal nañ ko xaar rek ndigal boobu mooy konte waaye nag li gën te boo xoolee sax moom la sax këru diine it def génn àdduna guddi boo moy ci guddi gi lañ koy denc xëy doo ko déclaré ne génn àdduna ndax yàlla noonu la ko waxee summa amaatahu fa aqbara bokk na ci bu mujj bi juróomeel bi nga xamante ne nit ki war na ko gaawe moom mooy def lu baax dégg nag sax dañ koy wax ci olof lu baax dañ ci dañ ciy gaaw balaa lan seytaane di ci dugg lu bon dañ ciy yéex amaana nga yedd sa bopp ba doo ko def waaye lu baax moom dañ ciy gaaw kon juróomi mbir a ngi nii nit ki na góorgóorlu ba da ciy gaaw bokk na si juróomi nag mooy li nga xam ne mooy temu xutba bi tey mooy tuub nit ki nay gaawee di tuub ay bàkkaaram yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu xiir bu yàlla xiir ci boppam aquli qawli haza astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim astaghfir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوم داي مبوك جوليني بكار دا فا اندك ñun yalla moy ki nga xamne da fay jéggalé li nga xam moy bakkar yi waye yalla ba légui ci bëggal ñu baax mu ñuy garantil xooleen aaya bi li yàlla wax in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhum nukaffir ankum sayiatikum wa nudxilukum munxalan karima allahu akbar yàlla nee na bu ngeen góorgóorloo ba bàkkaar yu mag yi ngeen moytandiku ko mu ne ma jéggal leen seen bàkkaar yu ndaw yi maanaam du ko xool bu ne bàkkaar yu mag yi ñun ñëpp xam nañ ko bi gën a mag ci bàkkaar yi mooy ban bokkaale njaaloo bàkkaar bu mag la donte am na ay njaaloo yu ndaw yoo xam ne mooy bàkkaari ndaw yi xool jël sa loxo teg waaye bi bi mag nga xam ne bii moom lañ ne bii mooy bàkkaar bu mag bi mooy nit ki njaaloo sëy ak ku jigéen ki wala ku góor ku jigéen ki sëy ak ku góor ki bàkkaar bu mag la kon bu moy tundiku bu mag boobu noonu xëy na amaana bu xoolee yàlla jéggal ko moo tax yàlla ne bu ngeen moytandikoo bàkkaar yu mag yi ma jéggal leen li nga xam ne mooy bàkkaar yu ndaw yi kon nit ki dafa war a góorgóorlu di moytu ko kémt lay kàttanam li nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi te lépp leer na bàkkaar yi leer na nañ lu baax li leer na nañ nit ki lépp loo xamante ne mu ngi koy def te mu nekk bàkkaar du bëgg mu fës tey élèves yi def examen ñu ngi nii yàlla na leen yàlla may ñoom ñëpp ku ci am examen day gaawantu ñëw ci quartier bi pour boo laan kaa laaj sax moo leen naan am naa parce que lu baax la waaye bu amul boo moytu dina xaar ba mu lëndëm muy doogu dugg ci quartier bi parce que bëggul wax ne am na donte nag dañoo jël exemple rek ci loolu mais lu baax nit ki daf koy bëgg def mu ne flagrant waaye lu bon daf koy def di nëbbatu donte nag am na def lu baax di nëbb lu mel ni saraxe nëbb ko nga xamante ne ki ngay sarax sax du ko yëg du xam ne yow sax yaa ko sarax loolu baax na ci nëbbatu waaye si sentiment nit ki la ñuy waxee lépp loo xam ne nit ki mu ngi koy def te bëggul gàcce fekk ko ci nga xam ne loolu bàkkaar la lépp loo xam ne mu ngi koy def te amu ci benn gàcce loolu fierté la ci am na xam ne loolu lu baax la kon bàkkaar leer nañ nañ ko moytandiku yàlla mun ñëw jéggal doomu ndey mbokk jullit ñi forme bi nga xamante ne mooy forme jéggalu du ñàkk dañ koy wax mooy nit ki il faut que mu conscientiser boppam mu toog xam ne man mii kat damaa def bàkkaar maanaam tuub bi ngay def warul jóge si nit ñi ñoo lay jugé déedéet jugement bi yow yaa ko war a defal sa bopp yow yaa war a defal sa bopp autocritique ah man de tooñ naa tooñ naa dëggantaan foofu lan moo taxaw instant boobu mooy reconnaître léegi nit ki reconnaître na man léegi bàkkaar naa lan moo ci des mooy nit ki dafa war a daal di nag taxaw nag ne man damay tuub ginnaaw bi mu reconnaître ne ne bàkkaar naa tuub bi nag charte yi nag day tàmbali mooy nga def regret bu njëkk ah man de njaaloo naa mu naqari la sa xol juum naa doomu aadama mooy juum waaye yàlla mooy jéggale bàkkaar yi ah nan laa war a def lii de dama koy réccu bu laajee jooy sax jooyal amal yéene ne dootuma ko defati bu fekkee àq bu dox la nag sa diggante ak sa morom lor naa sama mbokku jullit boobu moom faw nga delloo ko àq imma bu dee alalam nga jël delloo ko ko boo ko mënul delloo ñëwal nga wax ko nga ne ko baal ma mu baal la su la baalul yàlla du dugg ci diggante boobu tànk baal la moo tax yoon saa sam naan réglé leen seen diggante balaa bésu réglé bi du jot parce que foofu moom baalante du am ñaar rek moo fa am mooy jël sa tuyaaba wala nga jël ki nga amee àq mu jël ay bàkkaaram jox la mais foofu moom amatul amatul amatul ay jéggalante kon nañu réglé suñu problème yi fii ñuy jéggalante man de wax dëgg yàlla baal naa képp koo xamante ne nii amel na ma àq fi ma taxaw nii bugguma deewaaleeg mukk kenn koo xamante ni man yóbbaale naa ko ak boo xam ne moom moo ma ko amel parce que yow man xiyam amuñu temps toog foofu di rek lente ajjana duñu xaar ak ajjana nu mu neexee wallahi baal naa ñëpp te maa ngi sàkku ñëpp tam nañ ma baal julit noonu la war a doxalee yoni saa salaam jàngale ginnaaw bi nga defee point yooyu nag nga jàkkaarloog sa borom ne ko yàlla jéggal ma fi ñuy jeexalee xutba bi xëy na fooy bi dama ko indi mais si yére bi ma sol ci lay ñëw mais dinaa ko jox bilaal mu photocopie ko mën koo jox mbooloo bi ku ci bëgg mooy seydi istixfaar yonent bi ñaan bi mu jàngale ne bii mooy sangu jéggalu yi astaxfirullah jéggal la yàlla jéggal ma ma astaxfirullah astaxfirullah wa atuub ilayhi yàlla jéggal ma maa ngi tuub di dellu si si yow waaye bii moom yonent bi moo ne bii mooy seen sang ñoom ñëpp donte gis ngeen suñu maam aadama bi mu duggee àjjana def bàkkaar lu mu wax rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna minal xaasiriin waaye yonent bi taxul mu ne boobu mooy seydi te pourtant sax si alxuraan la ñaan boobu ñëw waaye baax na mais bii nag moom yonent bi moo tuddee bii seydi istixfaar muy ban allahuma anta rabbi laa ilaha illa ant xalaxtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastataatu auzu bika min charri ma sanatu abuhu laka bi nixmati alayka wa andubu zanbi faxfir li fa innahu la yaxfir zunub illa ant tey lan moo gën a firndeel ni xutba bi laa war a xutba wallahi al azim fooy bi may wax nii oto bi ma dugg laa dugg tuuti rek benn waaye dugg di ko séddale te ñaan bii nii la la moo nekk ci feuille bi après dinaa ko jox bilaal bi ma gisee feuille bi man jotumaa am mais benn waaye laa ñaan ma ne ko may ma sa bos mais sama biir xool xam naa ne kon ndekete xutba bi laa war a xutba te lii firnde na sànq nee naa man maa ko gën a yittewoo mooy que ne action boobu nu mu amee ci biir oto bi kon xutba bii nii ak fin d'année bi ñu nekk yaakaar naa ni ma ko yittewoo ku nekk fii toog war na sentir ne man yittewoo naa li nga xam ne mooy xutba bii te mooy lan tuub say bàkkaar dugg ci at bu bees boo xam ne da nga ciy dugg daal di set wecc yàlla nañu yàlla defal loolu yàlla nañu yàlla jéggal si nga xam mooy suñu bàkkaar seedi istixfaar bi yonent bi nee na mooy ñaan bi reetaanloo yàlla jàmm bi su bàkkaaree ba reconnaître bàkkaaram ba taxaw jàkkaarloog borom bi ñaan ñaan bi yoon saa sam nee na yàlla day reetaan doomu ndey mbokk jullit ni yàlla moo gën a kontaan fo waajoo xam ne dafa tukki dem ba ci digg tukki bi gëleemam réer ko wala fasam bi mu waroon réer ko yóbbaale dundam yóbbaale yéreem yóbbaale léppam ci jamono bi mu toogee woon di di def escale def sieste mu yeewu gis gëlëm bi dem na wala fas bi dem na ni muy découragé dem ba mu yàgg ne xaaral ma toog xaar dee ba som na le dugg ko foofu mu commencé di jéem a for nelaw xippi gis gëlëm bi ñëw ci kawam kooku dina kontaan wala du kontaan gëlëm bi ñëw tiim ko li mu yóbbaale woon yëpp dara manqué wu ci waa jooju boroom xam-xam bi muy ne dafa ne waa ji day kontaan sax ba naan yàlla bés ni tey yow yàlla yaay sama jaam man maay sa borom ndax kontaan bu ëpp dem ba jaawale wax yi nu mu ko doon waxee yoonu saa saa nee na waa jooju noonu mu kontaane noonu yàlla moo ko gën a kontaan su fekkente ne jàmm bi def na bàkkaar ñëw ne ko yàlla baal ma waaw du ñu gaaw tuub jot na de xamuñu ndax dinañ yeggale at bi kon nañu gaawantu suñu tuub te nañu jël li nga xam ne mooy seydi istixfaar def ko suñu sàlloo yàlla tagg na ci alxuraan góor yàlla yi dëggantaan mu ne mooy ñi nga xam ne bu ñu jógee njël dañuy jéggalu borom bi waxul dañuy julli de donte bu ñu jógee njël fajar lan la ñuy xaar si ñun mooy ñu dem jàkka ji julli suba mais yàlla nee na góor yàlla yi dëggantaan mooy ñi nga xam ne bu ñu jógee njël dañuy jéggalu seen borom kon nañu sax ci istixfaar rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasanatan wa xina adaba annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa